dans nga jël ko de de manière globale un peu partout au Sénégal. Mm-hmm. exceptionnellement je exceptionnellement euh, ngay gis xale yi di jëfandikoo arme c'est-à-dire arme yi ñuy jëfandikoo mooy lan mooy xeer. Mm-hmm. wala taal pono. Mm-hmm. Euh, wala dagg damm ay baraag wala daaneel ay kiosque. d'habitude c'est le type d'arme entre guillemets moom la ñuy gis les manifestants di ko utiliser donc. Euh, pour répondre à ta question, effectivement, on ne voit pas l'opportunité. Euh, d'user d'armes à feu sur une population bi nga xam ne ndéem day manifester quelle que soit la violence de la manifestation tant que la foule la n'est pas une foule armée tant que la foule la euh, ne présente pas des des des yenn risques yi euh, je crois que vraiment euh, on peut revoir l'usage le maniement et l'usage des armes dans de telle situation mais une chose est sûre. Mhm. su ñu naree def tey jii. teg ko sur la table mooy euh, li nga xam ne moom la jeunes yi di yore di manifester wu ak les forces de l'ordre mm-hmm. euh, tu vois qu'il a vraiment une nette différence oui. une nette différence mooy maanaam quelque part on a l'impression que euh, armement bi nga xam ne moom la force de l'ordre di yore euh, quelque part euh, je crois que dafa ëpp amul proportionnel waaw dafa ëpp quoi par rapport ak li nga xam ne moom nañu war a utiliser pour euh, calmer ou bien pour euh, faire en sorte que les manifestants euh, ñu mun leen circonscrire ci benn point et puis am benn fait bi nga xam ne man moo ma moo ma moo ma xaw a jaaxal tuuti Pape Matar il faut que je le dise oui, oui. parce que dama doon euh, wax ak un ami mu ne ma pour la première fois on a réussi à Bignona à tenir la foule à distance d'accord pour la première fois à Bignona mm -hmm. manifestation am on a réussi à tenir la foule à distance mm -hmm. donc qu'est-ce qui a dégénéré entre-temps pour que ñu mun a am ay incidents yi ni mel quoi ba nit di ci dee. Mhm. waaw te ni ko Khalil euh, relaté sax daf mel ni ay xale la ñoo xamante ni ci seen ay lycée ki seen école lañu jóge euh, ni dañuy manifester tout simplement parce que seen maire nañu nañu nañu nañu maltraité euh, image yooyu xaw leen choqué yooyu est-ce que effectivement li nga wax ci gestion wu foule yooyu police ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk voilà est-ce que jotul quand même ñuy demee pédagogie moytu répression bu ëpp bi waaw waaw xam léegi un peu partout la norme au niveau mondial mooy que yii bu amee il faut que qu'on en avant les services de médiateur euh, am na peut-être ñu ko contester et tout mais moi j'ai vu que même en France balaa ñuy egg ci yenn type de violence yi y toujours un médiateur bi nga xam ne mooy wax ak foule bi négocier quoi donc je dis que tey jii euh, euh, waa l'IA et le préfet on compris très tôt parce que très tôt ils ont pris la décision de suspendre tous les cours. parce que pour éviter justement je crois que c'était pour éviter des débordements moo tax très tôt ils ont suspendu tous les cours. tous les cours bi ñu leen ko suspendre je crois que ba ay heure bi incident bi day am. déggoon nañu ay manifestants ñuy taal ay pneus fële barre route nationale euh, numéro cinq barre route nationale numéro 4 mais. pas de confrontation nii nii nii nii quoi. Mhm. donc qu'est-ce qui a dégénéré entre-temps. Euh, c'est ça qu'il faut découvrir qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, justement qu'on puisse faire usage des armes dans la mesure où euh, ce matin am na sama benn xarit bu ma doon waxal mu ne ma vraiment tey durant les manifestations on a réussi à circonscrire les manifestants ci benn béréb. Hmm. donc lan moo mooy ji léegi problème bi mooy neexu la waxam Pape Matar mais il faut qu'on le dise. Hmm. le gosse ñu ngi ko rey ci wetu station totale. sama xel sama xel laay waxee. Mhm. Euh, est-ce que comme station Total boobu dañ ko taaloon. Mhm. Euh, lors des émeutes de mars deux mille vingt et est-ce que tey jii xëy na xale yi jege si nañu station Total bi euh, dans un souci de protéger ce lieu on a fait usage d'armes à mais est-ce que tey. je reprends les questions d'un ami sénégalais. Mhm. mu ne moom bu seetloo fépp fu intérêt français nekk. takk der yi taxaw nañu di fa protéger mais gisuñu benn quincaillerie bu sénégalais wala benn station bu sénégalais maanaam un intérêt sénégalais bi nga xam ne takk der yi toog nañ duñ ko di ko protéger ça c'est une question qu'un ami m'a posée ne ma nag j'aurais aimé que tu poses également la question je ne comprends pas mm-hmm. bu dee dañu war a protéger est-ce qu'on ne devrait pas protéger tout le monde ou ne pas protéger tout le monde mm-hmm. donc voilà aujourd'hui avec la mort de ce gosse là la question qui revient encore sur, sur, sur le fil. Wow. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voulait coûte que coûte protéger cette station-là que le mal est arrivé Mhm, mhm, mhm. en tout cas doy na waar doy na waar doy na waar aussi metti na ci euh, njabootu euh, ñi nga xamante ni ñoom la seen euh, doom seen xarit seen rak ñàkk bakkanam ci condition yi ñuy wax mais espérons que cette fois-ci Pape Sané mu mu bañ a mujj comme ni ñu ko waxee léegi ci yi fi amoon ci diggante mais wak juin juillet yi passé manifestation yi nga xamante ni ku jógi amaloon na ko foofu sa na amoon ñaari nit ñoo xamante ni dañ ñàkkoon seen bakkan laata sax ñuy def rek euh, voilà euh, ñooñ lu leen lu leen rey du bal bal fetel après si lañ dogay def kon expertise bi wane que ni euh, bal fetel moo leen rey ba sa procureur bi sax doon def réquisition kii juge d'instruction bi doon wax pour ñu ubbi l'enquête hmm. mu delloo ko ko ni ko tout simplement jarul enquête parce que enquête bi leer na xam nañ ni bal moo ko rey il faut que vraiment nga jël say responsabilités espérons que cette fois-ci ñu jël seen responsabilité parce que aussi ces ces ces crimes là ne waaw mais euh, Pape Matar tu as tu as tu as tout à fait raison d'ailleurs question bi c'est une question tout à fait légitime question bi nga xam ne bépp sénégalais mu koy posé mhm. mooy que bu ñu jógee depuis les événements de mars deux mille vingt et un gis fi ay morts yi nga xam ne lors des des des manifestation des morts qui ont été inhumées sans autopsie et tout ça euh, tey. Euh, récurrence ou justement ces morts lors de manifestations et surtout morts euh, par à la suite euh, de tirs ou bien d'armes létales mm-hmm. Pape il est tout à fait le moment c'est-à-dire le moment est bien choisi tey pour que qu'on ouvre justement ce qu'on appelle des enquêtes c'est-à-dire aussi euh, quel que soit le professionnalisme de nos forces de l'ordre mm-hmm. on ne peut pas aussi ne pas euh, ne pas ne pas ne pas exiger de faire la lumière quand il y des dérives oui. mooy que tey il faut qu'on situe les responsabilités parce que c'est très simple hein. Mm -hmm. c'est très simple c'est-à-dire gis nga euh, on le dit souvent que c'est un peu compliqué c'est compliqué oui mais je dis que avec aujourd'hui la balistique et tout et les nouvelles technologies il est très facile de déterminer euh, arm yi. Euh, mi arme bi utiliser munition bi. ak ainsi de suite c'est-à-dire y a y telles qui permettent de remonter rapidement au coupable. donc tey jii je crois que euh, bu dee dañu bëgg dalal xelu sénégalais yi dalal xelu euh, tout citoyen que personne ne pense que euh, y a un citoyen au-dessus de l'autre mooy que yii bu amee qu'on fasse tout pour que la lumière soit faite. parce que takk der yi aussi c'est des citoyens sénégalais et ils ne sont pas dessus au-dessus des lois c'est-à-dire ils sont des justiciables comme tous les Sénégalais certes ils ont des missions que les Sénégalais n'ont pas mais dans le cadre de l'exercice de leur mission ils peuvent commettre des fautes ces fautes-là également il faut que ñu mun de temps en pas de temps en temps il faut que ces fautes-là qu'on puisse quand même ouvrir des enquêtes et voir si effectivement euh, c'est des fautes qui ont été commises ou bien en tout cas il faut qu'on situe les responsabilités ne pas situer les responsabilités day continuer de nourrir une certaine haine entre euh, les manifestants sénégalais et les forces de l'ordre alors que ñu ñëpp ci benn dëkk bi nañu nekk ñii c'est leur mission c'est de défendre ñële peut-être que leur droit euh, moo leen permettre ñuy manifester donc pour couper la poire en deux excuse-moi du terme mooy que quand il y a des dérives tant on arrête des manifestants parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils ont brûlé, parce qu'ils ont cassé, autant on doit également arrêter, c'est-à-dire ouvrir des enquêtes et arrêter justement les, ces membres des forces de l'ordre bu ñu juger utile que ñoom ils ont ils partie prenante dans ce qui est arrivé la preuve bi mu amee fële à Sangalkam euh, quand les jeunes avaient attaqué la gendarmerie et que qu'il y avait eu la mort mais Pa Moussa Pa Matar on avait ouvert une enquête et on avait arrêté des gendarmes donc loolu day rassurer un peu sur euh, la citoyenneté day rassurer un peu sur day indi day day permettre une quiétude mais bu ñu jàppee ni que ñooñu kenn du leen poursuivre bu ñu jàppee ni que ñooñu euh, lu leen neex ñu def tey du mujj fenn euh, day indi situation de conflit yi nga xam ne moom la ñuy dund nii actuellement mooy cette animosité là bi nga xam ne euh, moo nekk tey ji entre manifestant yi ak force alors que ça ne devait pas être le cas suite euh, judiciaire que mu bañ a doon euh, voilà comme yéen